may dem sax maa ngi def def na 900 kilomètres maa ngi 525 kilomètres laa 525 kilomètres parce que dem naa Kaolack dem Guinguinéo néew doo ko donc bi ñu ñëw tam 10 heures 10 heures 10 heures boo xoolee déjà 10 le ministre du transport muy ku baax vraiment ku baax nga ñàkkee moom ci moom sax am confiance jël oto bi dawal ko moom dawal ko ci kanam Sénégal yëpp ñu gis mooy comme nañ ko wax sama vidéo bi naa leen oto bi ñëpp mën nañ ko dawal ñëpp mën nañ ko dawal ma ne ku mën oto mën na ko dawal ministre expo ministre ministre transport bi moom jël na ko dawal ko euh, ak ak kii bi euh, ak ingénieur ak ingénieur bi. jël tam jël na ko encore dawal kooku dawal na sax dafa benn tour moom ba dugal deuxième dafa benn tour moom moo gën a dawal sax dawal dawal nañ ko. dawal nañ ko normal bi may ñëw euh, bi may ñëw dawal naa ko dawal naa ko àgg paaruma dawal naa ko ñëw paaruma pour na seku montuma laal amul dara la ko ci laal oto bi mi ngi daw comme oto yi normal normal mi ngi daw ko na ñu baax lañu ñoom ñu baax lañu Sénégal moom vraiment suñu autorité yow baax parce que ñu bëgg nañ ko bëgg nañ suñu autorité bëgg nañ koy def effort booy def effort dañ lay bëgg bi dañ lay jàppale ba may dem muy lii la police gendarmerie amul kenn ku ma ci arrêté même su ma demee tasante waa gendarmerie dañ may arrêté taxaw foog man reetaan ak man daal di photo ak man donc mooy wane ne Sénégal ba fi nekk di def yoon nit ñi dañ lay bëgg vraiment euh, autorité ñu disponible lañ même Mimi Touré Mimi Touré nañ ma jëmoon mais muy ku baax vraiment muy ku baax wàcc wàcc xool oto bi ñëw vérifier ko vraiment autorité daal ñu autorité Sénégal daal vraiment ñu baax la amul benn problème vraiment ñu baax la. waaw mhm. ah, loolu moom digg nañu ko incha allah man maa ci des léegi man maa am ay papiers yoo xam dem fournir ko benn kayit yoo xam ne dawal. moom amul problème loolu moom doon wax ni dina la euh, fexe. en tout cas ba Macky Sall gis li ci euh, gis production bi ba lu ko bu ko jaree sax ñu jox la bourse d'étude pour nga dem jàng ji ci voilà ci sociétés yu mag yi nga xamante ne lañ defar oto yi euh, fan fan lañ ci toll. waaw ah, loolu de euh, loolu loolu waaw loolu ministre ministre transport loolu loolu la wax am na léegi ñu koy déglu rek amul problème. ginnaaw man ba ma demee ba ma demee après dama ñibbisiwaat. Mhm. ba ma demee après dama ñibbisiwaat léegi man damay doon déglu rek maa oto oto bi defar naa ko nii bi ma defoon nii mën naa ci defar pour cinq places ni ma ko defaree nii mën naa normal waaw mën nañ ko defar parce normal daw naa àndal naa oto yi oto yi néew moom moomoon oto yi mais oto yi mënuñ moom parce que oto yi may àndal ay sappaat àndal dama ànd ñoom ba si biir Ziguinchor fii jóge maa ngi jóge Dakar 10 heures la fa jóge 10 heures jaar naa normal loolu oto normal loolu